wuli Adama Diouf ñooy xeex wuli Adama Diouf wuli wuli Adama Diouf daan na ko Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan daan na wuli hee daan na ko wuli daanu na jël bu xeex na xeex bu metti waaye wuli xeex na xeex bu met wuli xeex aroojo wuli aroojo wuli aroojo wuli aroojo wuli dama dama yëg kala bi am quoi xaw ma nag mais maa ngi sant maa ngi sant yàlla yàlla sunu borom laay sant ñëw naa entraîné naa yàlla may kon na ko na ko jig. mais benn instant yaa amoon avantage ci combat bi loo def avantage ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom dafa bëri. moo tax bi ma songee rek naa. rasu nga rek ma ma waaye bëgg ñu contact ñu bëri mais mais bu laabu ji jeex la moo tax nga door ak kooku. non boobu boobu dañuy ko forme bi nga andi tey forme bi. sukat ko nga ma yow itam nag dama booy bi xam nga ko adressé ko Moussa Ndiaye. he sa waay gis nga ñii boo ak réew paa bi ñëw na. mais damay tegal seen bu baax man man xoolal gars yi dañoo teel a bàyyi gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ñu jàpp ci combat bi. Ah. nga féete ko suuf rek laa ni jeex na. loolu ci yaakaar nee na moom bu lay bëri du solu ci xeex nee ma waxu ko ci combat bi ne bi nee ma ne su ma ñaar doom yéen su ma yoon daw ci yéen bi yoon conseil ma ne mais xoolal boo boo mënee bu ci xeex maa njëkk a door maa njëkk a songu waaw suma foor la non non xoolal du ma découragé bu ma duggee bu gënaat mën naa def lu ne ci àdduna man damaa mën a bëre boor kër Souley 84 kilos laa doon def ko 2007 2008 di boor ak 120 kilos yi boor kër Souley Abdoulaye Ndour teraanga yu may defal Burkina Faso ma gisee bu ma daale ma tiit ndax dama yaakaar ne ay ñàkk la ñoo fi nekk ñu yëpp ma Diouf Kaolack moo demoon ambulance feebar ma ci yem 85 kilos mu woote ko def ko 100 kilo ñoom ma njëkk yaa ngi lay defalante fii ma jëm gars leen ñoom ñëpp ñëpp ma ñëwee aéroport mën nañu yóbbu ko avion bu wàccee avion la jox jàppale ci combat bi mais kontaan naa ci yëpp maa ngi cëram yow sama xarit nga ragal a féetoo wax nga nag sa poulet la mais ban nga faral bu jéem a lakk-lakkal de waaw aw la